ñoo ngi ànd ak yéen tey ci seen téere Serigne Souhaibou bi nga xam ne dañ ciy indi naafila yi jëm ci weeru koor wi tey nag ñu war a ànd ak yéen ci ñaar fukkeelu guddi ak ñaar ci weeru koor wi ñu indi ci téere xoratul xayna bu Serigne Souhaibou mu wax ne guddi googu ñaari rakk nga ci julli rakka bi da nga ci tari fatiya benn yoon tari ci sabbi xisma tari ci inna ansalnaahu ak xul huwallaahu ak lexlaas ak naas lu ci nekk ñetti yoon ñu baamtul leen ko guddig ñaar fukkeel ak ñaar ci téere sëriñ son yi bu xoratu loxoy ni mu ne da nga ciy julli ñaari rakka rakka bu nekk nga jàng ci faatiya benn yoon ak sabbi xisma ak ina ansalnaahu ak qul huwallaahu ak fallaxi ak naasi lu ci nekk ñetti yoon ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah